mbokk yi jërë ngeen jëf ci bi ngeen di ànd ñun ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci euh, restaurant Ndiaye Gaynde ñu ñëw toog ak ki nga xam ne moom mooy le nabien propre le nabien du peuple chanteur du peuple ndaanaan la ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee nañ ko gis nañu ko itam euh, ci yenn événement yi nga xam ne bii waaj bi ñëw muy wane boppam euh, fu mu koy gën a wane nag moom mooy guddig yonent bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne li ci des pour ñu dem foofee nga xam ne moom mooy ca Tiwaawoon wala ca Kaolack wala feneen ak feneen ngir màggal bés bu sell bi la ca des bëreetul moom nag mu ñëw ak surprise bu doy waar génn loo xam ni man du ko wax mais plutôt moom moom moo koy wax wax ñu itam exactement lan moo tax mu génn ko ginnaaw bu mu defee bu mu leen nuyoo ba pare itam euh, dafay daal def déclaration wax ñu exactement lii nga xam ne moom la génn mu rafet lool boo koy seetaan ci télé da ngay am envie dugg ci biir télé bi fekk ko ci biir télé bi dafa rafet lool ñu ngi lay félicité bu baax Mouhamed Alla Diop euh, ginnaaw ñu bàyyi la nga daal di nuyu ñu lay seetaan nuyu itam euh, les les internautes. aouzu billahi samil alim min ashari seytaan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yaxfaqu qawli allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa maa ngi wax asalaamualeykum mbokki àdduna di ci jiital waa senegal mi nga xam ne fii la ñu juddoo yore fi màggee fi fépp doomu aadama toog rek jàkkaarloog presse bi di seetaan Mohamed Alla Mohamed Alla mi ngi am mbégte ak contentement di la ziara te di la nuyu ci nuyoo bu sell boobu di nuyu asalaamualeykum wa rahmatullah te fas yéene waxtaan ak yéen ci carrière ak lépp lu nga xam ne rek def na ko pour ay soppeem. d'accord comme que euh, comme ni nga ko waxee dañuy ñëw ci li nga xam ne euh, moom mooy carrière bi depuis nga door ak léegi euh, naam yàgg na yàggul waaye nga ñëw prouver wane na ndaanaan nga ba am na ñoo sax ñoo xam ne nii ay artistes la ñu nekk ci biir Sénégal. nga jot def ak ñoom euh, li nga xam ne moom mooy featuring ñu ñëw tuuti ci euh, carrière bi. waaw carrière bi nekk la loo xam ni comme ni nga ko waxee yàgg na yàggul waaye ñu ngi góor góorgóorlu di bay suñu waar ci ni mu waree mm-hmm. ndax euh, lu ñu judd fekk suñu bàyyi di ko def la ñu topp ci ginnaawam diñ maa nag macha allah di ko jéem a roy tey di jéem a tegu ci lancé bi mu ñu teg boobu ba tey nag suñu borom mi ngi ñuy suturaal alhamdulilah rabbi alamin ñu teg fi nga ko war a teg rek nekk ci. di ñaan yàlla rek suñu moom mi man a àggale mu àggale ñu ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. d'accord alors carrière bi depuis nga ko door ci ban année la sax plutôt nga wax ñu itam exactement lan moo la dugal ci wéy ak regret yi nga xam ne am nga ko ci maanaam nga dugg ci ba léegi lan moo la ci gën a metti waaw bi ma dooreeg léegi daanaka depuis 2006 maa ngi topp sama ginnaaw jur di ko aw nekk xale bu ndaw waaye bi ma nit ñi laataa ràññeek léegi mi ngi toll ci 2019 ba 2023 defe naa ni quatre ans la macha allah boobu ba tey ñu ngi góorgóorlu di nab nabi ci li nga xam ne moom mooy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw des fois ñu am ci lu ñu ñu am ci lu ñu naqari waaye lu ñu neex moo ëpp waaw ndax nag métier boo gis rek mënoo ne tout le temps da ngay am bonheur da yaa yàlla malheur ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye nag sant yàlla ndax nag nit ki boo bëggee dara amaana nit ngi ci concentré wu di ko def métit bi lu mu métti métti métti bëgg-bëgg bi moo tax doo ko yëg waaw te nag ñu ngi def bëgg nañ ko loolu moo tax lu mu métti métti rek duñ ko yëg. Mm-hmm. alors nga ñëw génn li nga xam ne itam sénégalais yi bëgg nañ ko fonk nañ ko te euh, ñu ngi koy téye bu ñu koy wayaat da nga ñuy jàpp ne sax 2023 la génne euh, naka nga ci liggéeyee ba affaire bi des léegi ba léegi ci xelu sénégalais yi. waaw man nag dama nekk nit koo xam ne dañ ma yar ci carrière mm-hmm. man buzz intéressé wu ma buzz mooy di def ba loo xam ne da nga koy def pour rien mu. dem 3 mois ou 4 duñ ko déggaat man sama œuvre bu nekk boo ko tegee day mel ne tey la génn parce que damay liggéey liggéey bu metti liggéey bu yàgg tëju studio toog di bind samay texte di enregistré wu di jàng samay xasida yeneen ak yeneen ak yeneen tënk ko tëgg ko tëgg ko ba mu ñor ma dem studio ànd ak sama groupe liggéey ko jox ko Sénégalais yi moo tax macha allah sama son wu 2019 boo ko tegee tey 2023 wala 2024 plutôt day nekk loo xam ne day sedd sa xol wala da ngay gëm ni que lii produit bu bees la tey lañ ko génnee ba tey ñu ngi ci ci carrière bi euh, yéen ñi nga xam ne itam yéen a toog fii bu ngeen amee question mën ngeen ko poser ci li nga xam ne door na ko nekk na bien mhm. pourquoi ce choix. waaw choix bi nag d'ailleurs dafa nekk loo xam ne héritage la ba pare doon la bu ma doon ci suma papa ba noppi mu nekk loo xam ne sama bëgg-bëgg la ndax à bas âge bi ma nekkee xale di jàng daanaka li nga xam ne moom mooy nekk na bien tagg yonent bi ak lu jëm ci wàllum aar façon aar bu ne jaar naa ci. bëgg-bëgg woon boo xam ne dama fa naan jaral may daw jàng di ci concentré wu ñu may dóor wala may dem fenn foo xam ne dañ may toroxal wala may dem foo xam ne dañ may dàq rien rek bëggoon doon dara ëllëg ma di ko xeex di ko xeex di ma bàyyi lépp concentré ci choix bi nag nekk loo xam ne lu ma gënal la parce que dama ko doon ba nekk ba pare mu nekk héritier boo sama papa laa ma bëgg jël pousse bi teg ko bu ma def rek yàlla xam na ni nit ñoo koy topp di ko béggee mais man dama naan xeeb naa ko pare naa fii maa ngi xoolee leneen loo xam ni mu ngi si sama kanam loolu moo waral choix bi mhm. ba ci carrière bi gis nañu nga def featuring ak ay ndaanaan laataa ñu ñëw ci euh, clip bi nga xam ne génn nga ko Sénégal yi bëgg ko depuis boobu ak léegi dañu koy seetaan di ko bëggee euh, ci biir carrière bi nga def euh, featuring ak ñeneen ndaanaan mën nañ caa tudd Ngaaka Blindé bi nga mujjee def moom mooy l'international Wally Ballago Seck yaa ko sàkku wala ñoom ñoo daw ñëw ci yow. waaw man nag yàlla dogal na ni musuma sàkku dio ak benn waykat. Mm. waaw muy ci. côté religieux mu ci côté musique ku ci nekk rek bu ma defee yow featuring yaa ma toog seetaan ma wala nga li may def Mohamed Alla li muy def doy la nga woo ma téléphone ne ma damay def morceau nangam yow laa ci sentir ma ñëw ñu def ko euh, avec le cœur affaire bi jàll ndax sénégalais yi mhm. waaw ñëpp nag macha allah. Mhm. ban moo la ci gën a marqué. waaw bi ma ci gën a marqué mooy duo bi ma def ak euh, Ngaaka Blindé. Mm, waaw li tax mu gën ma marqué mooy dafa dafa daje dafa tombé. dafa fekkoon ma nekk di bind benn way bi ma bind way bi ma ni way bi de dama ciy xalaat rappeur ma teg ko sama oto di ko déglu di ko déglu musique bi du ma ni fii de bu amee ku rap dina nekk lu neex bi ma ko xalaatee ndeke moom aussi mu ngi doon xalaat ne buy way yonent bi Mouhamed Alla lay lay lay lay jël mhm. idée bi mi ngi woon ci boppam par yàlla ma ànd ak sama benn xarit bu tudd Duudu ma tegal ko morceau bi Duudu Duudu sita nawam ne lii de Ngaaka bi leen laaj sentir ma ne ko ah mu munu ma xaaral ko mu woo Ngaaka bi mu woo ngaak ngaak ne ko man mu xam ci saasi rek de laa bëgg kii sax pour ñu def benn affaire ci gi rek mënu ko ça tombe juste nii nii nii ci lañ doon wax ñu toog dem teg morceau bi ngaak ne day dem studio ci saasi enregistré ñu dem ci saasi lañ dem toog dugg studio liggéey ko mu rafet waaw le fait que yonent bi daal di indi boobu moo tax affaire bi marqué ma ofet waaw ngaaka moom suma duo ak moom daf ma daf ma marqué muy man ak moom yëpp texte si ci saasi lañ ko xalaat ci saasi lañ ko bind ci saasi lañ ko way mhm. la ñu def ko ci studio bi mu jàll. Mhm. mais bu bu Wally Ballago Seck bi bëri na polémique. ñii nee nañu euh, euh, lan moo tax mu tànn Mouhamed euh, dàq fee way ñeneen ñi di wax leneen ak leneen ak leneen genre critique yaa ngi koy dégg. waaw mënut a ñàkk. Mm. waaw mënut a ñàkk ndax liggéey moom ñaar a am nangu ak bañ ñuul weex àdduna lépp ñaar la mu dara mënu dem bàyyi bàyyi moromam. Mm-hmm. te critique moom mooy dimbali ki nga xam ne moom moo. nekk ci yoon di ko dox sama duo ak ak Wally Ballago Seck c'est normal mu am polémique parce que moom moo toll noonu nit ki am na niveau booy liggéey ba toll fa mënoo laal leen loo xam ne du am ay critique c'est nit ñi nekk ci loo xam ni amaana safaan la sax la ñuy jàpp di critiquer waxuma la ko xam ci lu baax la nekk te ku nekk ci lu baax encouragé ko da ciy rafet wax ci say xalaat da ciy rafet waaye tamit critique mënul ñàkk ndax moom moo ñu dimbali ba ñu mën a xam bu baax a baax fa la ñu teg suñu tànk moo tax sama duo ak Waly Balago Seck bi critique bu mu mën a doon daf may gën a motiver ndax man instant bi maa ngi xaar Youssou Ndour waaw wala keneen a keneen Sami Youssouf wala euh, Maher Zène foofu la sama bët nekk mu toll nii mm. loolu liggéey naa ko romb naa ko la demee. Euh, ci clip bu rafet bi nga mm-hmm. bi nga xam ne mën naa yaa ngi koy andi euh, ci euh, réew mi en gis nañ ko sama ji sànq dañ koy seetaan bi dañu seetaan ne bu bëgg yooyu mais gis ne da nga ñëw en tant que playboy en tant que boy town mm-hmm. ñëw mën nañ ne def sa braaya wala tey jii colin colin boo xam ne kuy dem soirée moo ko doon solo loolu option boobu noonu nu mu dikkee ci yow waaw moom mooy bi ma doon wax li ma doon li ma ko wax wax li ma ci tontu sànq rek mooy que waruñoo tënk suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñoo nekk di tagg yonent bi ndax tagg yonent bi métier la comme métier yëpp gën ci riche nag lu mu mën a doon ci àdduna tagg Seydina Muhammad moo ko gën a riche waa léegi bu fekkee da ngay def métier bi nga xam ne moo gën a riche te ki nga xam ni moom moom ngay tagg ku ñu bind moom moo tax musicien bi bu ñu ko bindee yonent bee tax yow caméraman bi bu ñu la bindee yonent bee tax ki defar fauteuil ak ki defar clim ba ñu ci bànneexu yonent bee tax ñu bind ko kon yow lépp luy luxité wala mu rafet ba nit war ko mën a xool ba xemmem ko yonent bi jagoon na ko man ci sama xalaat boobu ak niveau bi may doxee ma ni pourquoi pas ñu bëgg jël tagg yonent bi rek placé ko ci benn benn benn benn benn kii boo xam ne benn champ boo xam ne bu ñu ko fa dugalee dañ koy wekk wekk xeetu wekk goo xam ne gars yi lu ñu soxla rek ñoom foofu lañ koy placé mais du mën a génn du am ouverture ndax tey jii da ngay bëgg soirée de gala sax mën nga ko war dîner de gala da ngay xalaat benn musicien wala leneen ak leneen te pourtant yow amaana da ngay dund diine mais bu fekkee benn Mouhamed Alla daa ñëw di def clip boo xam ne dama defe na ko ci yeneen réew yi wala Mouhamed Alla ñëw na def indi benn solin boo xam ni tey ji ñu amaana ñu bare bare bàyyiwuñ ko woon xel ci moom ñu ko doon xaar ci benn waali wala ci benn kii nga xalaat sa dîner de gala woote nit ñi ñëw toog nga ni ah fii de war naa fi woo Mouhamed Alla mu ñëw tegal ma Dumba wala mu tegal ma xalam tagal ma Seydina Mouhamed moo tax ma ni pourquoi pas man Mouhamed Alla ma ñëw ci sama génération indi beneen fashion indi fashion di sol lu set di sol lu classe ku ko xool xemmeem sama jëmm ñëw xam ni man tagg yonent bi mooy sama métier ndax Cheikh Ibra moo ni tëgg leen jung-jungi ba gaa yi ñëw ngeen wax leen di fi ne man nag idée boobu laay demee ci sama bopp. waaw ça va bien alhamdulilah. sato hmm. merci beaucoup merci beaucoup. waaw li ma inspiré nag mooy bëgg bëgg ay way bëgg ay way moo ma man du ma am inspiration fenn damay dem toog di xalaat ni que fii la sama domaine toll dama koy jëlee un yóbbu ko vingt tout le temps tout le temps maa ngi xalaat inspiration bi lan la ma war ba xam dama koy way ci acoustique wala dama koy way ci tabala kase wala dama nan laa mën a def ba ba accoutrement beeg lépp changé man changement daal moo ma moo ma ñor en léegi nag comme que def naa loolu ba dem studio enregistré samay son jox ko sénégalais ñu ko cons defe naa ne sànq nga baal ma kii nu mu tudd Abdou wax na ko wax na ne ma Mouhamed Alla en 2019 sa son ku ko déglu ba teg ko 2023 day mel ni tey nga ko def tey nga ko def damay liggéey liggéey bu metti parce que damay bëgg bu ko sénégalais yi déglu xam ni que du ma ne ñu ndurale maag Waly wala wala Youssou Ndour waaye dañ naan jege naa ko ci liggéey bu metti waaye ci bëgg yóbbu sa réew foo xam ne amaana tey ji bu ñu doon def benn diine ci beneen dëkk ñu ni Algérie wala Maroc wala feneen ma taxaw représenté Sénégal tagg fa Seydina loolu moom mooy gën a motiver te loolu moom mooy inspiré pour ma mën di euh, génne ay son yu <laughs> <laughs> waaw pass nga ma ko téléphone ndeysaan soxna waaw. yonent bi nga xëy nga xëy nga tàgg euh, nga xëy tàgg si yeneen kàllaama par exemple ay ay anglais ay ay voilà ah, waa arab anglais bon parce que sans gis naa sa clip bi nga defee Dubaï est-ce que tamit euh, yaa ngi xalaat tamit tam dem ziyaara Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak si jamais tamit euh, Moustapha Mbaye nga xam ne ñëpp xam nañ ko tamit si tagg yonent bi sallallahu alayhi wa que xalaat nga tamit dafa moom yow nga xam la yow xale nga loolu naa su àndee moom macha allah. waaw lu war a mën a nekk la Moustapha Mbaye et pourquoi pas sama papa Alla Diop ndax dañ ma koy proposé lu bare bëri lu tax defagoo duo ak sa papa ndax ñoom ñëpp ay mag lañ te dañoo bay seen waar macha allah ba agsi fii nga wax ma question ba mu solo nag tax man mooy li ma wax rek ki nga xam ne tey jii def amaana day tagg yonent bi rusuma sol costume man wala ma sol sama ensemble blazer dem taggee ji ko yonent bi waaw kon ki jël loolu pour changer euh, habillement am defe naa ni ay idéem du mat a wax sama idée nag way yonent bi ci anglais way ko ci yeneen façon làkk yoo xam ne dégguma ko dem gëstu ji ko wallahi la bi jaral ko te euh, bu yoon jeexul rek waaxu suuf du jeex bu yàlla indee moyens yi wala yeneen ak yeneen luñ ko mën luñ ko mënee xëcc ba loolu ñëw dinañ ci rey suñu bopp ba tey ji amaana ñu toog Sénégal di seetaan Mouhamed Alla muy wax beneen làkk boo xam ne bokkut ak làkk bu mu nàmp di ci tagg Seydina Mouhamed mu nekk une fierté waaw. d'accord ñu fay bu baax. voilà loolu ñëw si euh, clip bi ñëpp seetaan nga xam ne daal ne solo bi ma solo kaan beeg yére bi ne solo ñu formation la deuxième question bi tamit mooy tool budget clip bi bi waaw waaw clip bi képp ko bi ku ko seetaan xam ne waaw ah, mais bu clip bi yow boo ko xoolee rek xam ni. ci budget clip bi ñu ñëw ci habillement bi. voilà man ñoom ñoo xam formation ñoom ñoo xam formation maa ngi soog a dégg sax moomu formation waaw. waaw mais loolu pour aar la rek damay damaa def loo xam ne pour mu pour mu aaree pour mu gën a taaral sama sama vidéo aussi que won ne Afrique am na culture am na lu rafet. te ku ku gis culture africain di seetaan nigérien yi wala yéen ak gis ni lool la solo waaw loolu dong la mais kii wag mu tudd sax xaw ma moo bi lan la sax lan la wax léegi faramason man maa ngi koy soog a dégg ci yow te yàlla ma ci yàlla musal <laughs> beneen bi mooy que lan nga wax sax budget clip bi boo seetaanee clip bi xam ni du budget xale waaw boo xoolee clip bi clip bi boo ko xoolee xam ni kii foo ak kii liggéey bokkul xam ni gars yi dañ doon foo de liggéeyuñu barke yonent ah, loolu moom ay dogal la. d'accord mais mais pourquoi allez-y allez-y. oui maa ngi koy si man mii jàllale maa ngi ko fayda bon j'ai l'habitude chaque fois su ma gisee musicien ma laaj question boo xam ne relative à la SODAV parce que vraiment li nga xaaj booy def parce que l'agent public qui est censé appuyer défendre les artistes su ma a gis seen bopp si SODAV su ma tasee ay par exemple yow jàng def création créativité est-ce que yéen yéen ngi seen bopp Sodav waaw solo question bu solo merci beaucoup question boo am solo ñun ay membre lañ Sodav ñu ngi dal suñu morceau di ko protéger waaye suñu premier ñaxtu bi ñu ñaxtu ci Sodav dañuy wax ni que ñun œuvre yi ñuy yor moomuñu ko ndax ay bindu mag ñi la ñuy nettali te mu nekk loo xam ne lu mett lu ñu metti la nag parce que li nga xam ne moom mooy mbindu mag ñi ñun ñu koy nettali mag ñi bu fekkoon dañ ko bind bàyyi fi te amul ku ko nettalit defe naa ne du am sens te bu fekkoon dafa am dañ ko fi bàyyi wax ko ci kàllaamay arab amul ku ko faram-fàcce ci olof ci xale yi jàngul du am sens bu dëgg ñun ñu ngi ciy rey suñu bopp lu Sëriñ Tuubaa bind mbaa Sidi Aji wala Seex na Seex Saad Bu ñi ñoom ñëpp ñu fexe di ko faram ci olof ba ñii nii di ko mën a dégg ba di leen xam xam ne ay héritiers lañ liggéey nañ fa lu rafet kon ñu gën ñoo considéré ndax ñun ci société bi lañ bokk te dañuy dugal koom-koom fii ci Sénégal ndax Mouhamed Alla day tëgg soirée mu fees dell ñu ngi dagg entrée ñëw mu fees ñu ngi ñëw bége ku ne dem comme ni ko yeneen musiciens yi di defee beneen bi mooy que membre SODAV yi nga xam ne ay tàggatu yonent bi lañ dañuy wax que ni bu ñu collaboré ak dalal ton wala yu ni du ñu mën di fayee ko ndax ñoo ñooñu lay fay ñi nga xam ne ñu ngi membre SODAV ñu ngi membre euh, euh, dalal ton orange ci di euh, inscrire pour boo wootee ñu ne la yaa ngi jokk ak nangam contrat boobu ci loolu la ñuy fay mais à part loolu moom à part loolu gisuma ko SODAV yëkkati leneen loo xam ne mi ngi koy fay ñi nga xam ne ñoo tagg yonent bi ah man boog waaw waaw commencé woon nañ ko ba gars yi am association waaye nag li ñoo fait la force waaye lu ci baree bari pour nga gis dajaloo bi ba gars yi xooli ànd pour ñu def ko mooy mooy a euh, jafe te ñun daanaka ñu ñoo gën a ndaw ci ñuy tàgg yonent bi daanaka loolu ci mag ñi la waroon a njëkkee ñu ñëw ko dajalew ba ñun mag xale ñu mën cee ñëw bokk rek pour participer xam naa ne boo gisee ñi nekk ci kaw ay ñoom Moustapha Mbaye ñoom Baye Alla nga posé leen question boobu incha allah. d'accord ñu ñu tuuti ah ci vidéo clip bi euh, gis nañu différentes personnes ñoo xam ni mën noonu lañ ko mën tuddee parce que dañoo gis ay bantu ci seeni i bakkan et tout ça sélection bi naka la demee ak fan ngeen ko tourné ci biir réew mi wala fan la exactement. waaw clip bi daanaka ci biir réew mi lañ ko tourné. Hmm. waaye biir mel ni am na ci réew mi. waaw moo tax def ay recherche dina am solo ci ndaw ñi ma wala benn message foofu. Hmm. am na ñoo xam ne juddoo nañu Sénégal ba màggee fi xamuñu xeetu nit ñi am nañ fi wala xeetu doomu euh, dund nii nit ñaa ngi koy dund hmm. man. en bi ma demee dama am beneen découverte boo xam ni daf ma daf bett parce que lii c'était à kii Kédougou cinq kilomètres daanaka moo Guinée sorewuñu en fait bi dëkk bu ñuy wax Dindéfelo ak euh, Ouel fa laa tourné euh, clip bi mais lu am solo ama ama am solo daanaka li gën a yokko tax sax conférence de presse bi ak euh, ma génn loolu ci la bokk mooy que message bi may lancé pour jeunes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal mhm. barke Nabil Moustapha ndax man yonent bi lay tàgg ma koy tàgg ci différence méthode yoo xam ne bokkul mën naa ko tàgg ci comme ni ko cheikh bi waxee sànq différence langue yu bokkul mhm. wala ci xeetu musique yu bokkul mhm. ñu bari tàgg yonent bi ci tabala lañ ko xamee woon wala mat matku ci am daaxu xasida yi mais mooy tàgg yonent bi di teg instrument di ci way ba génn toog xalaat sama idée ne man clip bi dama koo bëgg a defee Guinée wala ma defee ko beneen dëkk suñu borom di ma taataat di ma taataat ba won ma euh, Kédougou waaye bi ma demee foofu dama gis yeneen kanam yoo xam ni pour man si àddina yàlla sàkkul ñu mel nii ma am ci beneen jàngat beneen bi mooy que ñi nga xam ne ñoom laa boole ci clip bi duñ ay jullit gëmuñu yàlla man ma tagg yonent bi indi leen ci domaine boobu ñu ñu ñu dukkat ko savouré ko ànd ko ak man kon ma defe naa ni mission bu ma ko doon dox amaana mat na waaw waaw ak as bi ma am de c'est la première fois ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu accepté nit pour mu ñëw def clip jël seen image defe naa ci ay documentaire rek lañ leen doon gis ci li ma yaakaar naka mbir yàlla mm. dem ba foofu dox 30 minutes à pied aller 30 minutes aller 30 minutes retour pour jot eaux euh, et forêt bi tourné foofu ba pare ñëw am ku ma woon benn photo ci internet mooy ñiy bind euh, ñuy a bind sax ñu bënn seen fii ñu leen di woowee les Bassari ñu cosaanoo diggante Guinée ak Kédougou bi ñu demee foofu euh, raconté nañu histoire bu bu bu am solo ci ci diggante Guinée yi ak ak Bassari yi waa ne ma pourquoi pas ñii nga tourné ñoom ci clip ma ne ko fan nekk munuma deux heures de temps euh, de voiture ngay def boo wàccee da ngay dox une heure de temps à pied une heure de temps retour te ay montagne nga yéeg parce que Nabil Moustapha te ci loolu laa jaar mu jaral ma ma yéeg montagne aller une heure de temps mhm. tourner ak ñoom yàlla di di taw ma taxaw xaar ba mu sewet tourner waat ak ñoom foofu day taw par par minute daanaka day taw tuuti taw bu fort arrêté waat naaj bi génn mu tawaat ma dem foofu te bi may yéeg ci montagne yi maa ngi leen di gis ñu gàddu ay gurtu di ko yëgal ci ci kaw pour dem di ko pour pour di ko dundee mais man ma dem di tàgg ji yonente bi ci en tant que jeune ci l'islam dem ci ñoo xam ne gëmuñu yàlla ñu accordé ma ko avec plaisir mm-hmm. est-ce que yaa ngi imaginer loolu kon mission la boo xam ni ma amaana man bu ma ko nit ñi nangul man yonente bi nangul na ma ko man laaj leen dama cee jooy ba sonn mënumaa àggali clip bi parce que dama xam ni amonage ma ma ma décroché lii yombul loolu moom ma gën a neex pour mu mën a woote presse pour ñu ñëw ñu xam ni que yoon benn yoon neexul rawatina yoon ndaw mais pour nga am ndam fallait que nga xeex pour loolu nga mën ko tàccu leen loolu waaye waa nag ñun ñëpp travail d'équipe la te ay xale lañ groupe Karbala groupe Karbala la group sopp na bi moo muy groupe àll jur Karbala nekk ay xale yoo ay héritier la ñëpp nag kenn ku ci nekk rek bu sa papa daawul ànd ak àll jur daan na ko seetaani nga ñëw dajeeg Mouhamed àll ngeen foondoo màggandoo man ñi ma doon foondoo ba ma nekk xale ñooy tamit sax ñii laay àndal foo ma gis ñii ngay gis gis nga muy pré point de presse muy programme muy anniversaire rek foo ma gis boo gisee Mouhamed Diop gis nga Malick gis nga Sadd ñun te ñoo koy toog gis nga Baara Seck ñooy toog waxtaane ko waxtaanee ko waxtaanee ko ba juboo ci kàddu ñu dóor dóor bu naaj boo seetloo sama premier clip man cinquante mille laa ci fere kee moo ko clip moo ko réalisé Sénégal Vision moom tamit mu nekk premier clip ba moom ma ne ko fii mën nga ma tourné clip mënu ma non ma ne ko kaa ñu essayé sama gëm-gëm rek ñu essayé ko morceau bi jàll ñii naa ma clip bi naaj na ñii di ñii di bañ ñii di nangu may dugg ko daanu ba tey ma yëkkati lu toll plus de deux millions cinq cent wala ko def ci budget bi kon yokkute am na macha ñu ñaan yàlla mu gën a yokk Euh, benn single la amaguma album. te loolu lañ bëggoon a ñëw sax mm-hmm. waaw xam naa léegi rek bu ma laajee gars yi rek waxtaan ak staff yi. Mm. waaw bu ñu la joxee ndigal rek ma kii ndax way yaa ngi fi du jeex. waaw. loolu tamit lu am solo la tax ñu ngi ci. waaw parce que gisoon nañ ngeen def dîner de gala mu neex lool. Mm-hmm. entrée ñaata la woon sax. 500000 500000 table 500000. c'était une mu fees réussir lool te loolu lépp rek man gëm naa ne lépp lu neex. Mm-hmm. mbaa luy réussir yonent bi ko jago mhm. waaw kon dara daraay ragal rek cof ragal la néew ci man bi. bi gis ne daal mhm. ni ñu ko taxawee ni nga dem fa ak lan moo la fa gën a marqué clip bi boo koy seetaan di ko seetaanaat lan moo la ci cest waaw sànq wax naa ko muy xeet gi ma fexe ba Sénégalais découvrir ne am na bis am na fi suñu suñu dëkk bi mhm. waaw le fait ma génne culture Afrique te lii génnul Sénégal. gis nga gaz yi ñax yi champs yi montagnes yi mu rafet lool kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci art wala ñi nga xam ne dañuy def théâtre wala leneen ak leneen le fet que dem ci yeneen i dëkk mën nañ toog rester Afrique di am seen culture di ko génn te day neex Sénégalais te buñ ko seetaanee dañuy gis ne lii macha allah mi ngi biir Afrique te dem di abandé dara am nañ lépp loolu moom ci gën a neex ak le fait que ñi nga xam ne gis naa ni duñu julit ma fexe ba dugal leen ci sama yonent bi looloo moo ci gën a neex ndax nga nga takk soxna yokkul lislaam dara nga tagg yonent bi kazalika mais nga jugal nga jëlee ci beneen xeet dugal ko ci diina lislaam loolu la yàlla soxla te man bu ma leen tuubloo it fex naa ba ñu savouré yonent bi seen biir xol loolu rek loolu rek plaisir la bu fi yamoon sax neex barke nabil Musa waaw waaw li may tàggatoo nag mooy di leen gërëm yen presse bi ci seen disponibilité parce que ñun lu ñu mën ci defit bu ngeen ko fasul du fas ñun mënuñu dem sans yéen di leen ñaanal yàlla defal leen tawfeex kenn ku ci nekk rek ku ci am ay projet suñu borom motali ko may ñaanal bu baax a baax aussi ki nga xam ne moom moom bërëb bi muy Njaay nga xam ne bu ko soxlaa rek dañu ko yombalal di bu baax di ñaanal bu baax samay soppee ñi nga xam ne tout le temps ñi ngi xaar Mouhamed Alla ci level bu kawe ñu wax moo wax la ne liggéey bi nekkul fii lay yam ça c'est que commencement te ñaan yàlla suba incha allahu rabbi ñu xaar Mouhamed Alla clip biir Amérique ak groupe am wala ñu xaar ko beneen nit dëkk loolu moom mooy sama bëgg-bëgg te su ma soñoon suñu borom loolu la may defal te nag yàlla nee loo gëm rek su boobaa ma fekk si la si kon nag maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax ni Mouhamed Alla mi ngi leen di dénk boppam saa bu ngeen jullee ngeen di ko ñaanal di ñaanal suma ñaari père yi mooy presse en ndax posé na kii sànq def na euh, analyse bu bu bu ma neex ñoom ñaar ñi leen ñaanal bu baax yàlla def leen tawfiq ci barke Seydina Mouhamed soxna si moom it tur bi soxna Satou ñu ngi lay bëgg di bëgg aussi laay moom it vraiment li lépp sababam la waaw vraiment moom chapeau à lui ak mm-hmm. équipe Karbala yëpp ma jël seen ñëw di ko teg ci loxo Malick mu joxal ma ko képp nga xam daal yaa ngi ànd ak Mouhamed Alla ci liggéeyam. ngeen dem man ah, mën ngeen dem sur YouTube ngeen seetaan ko. Euh, clip bi neex na rafet na mën ngeen ko seetaan en même temps itam ngeen partagé ko pour mën a jàpp ci liggéey bi. merci Mouhamed ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom itam gën a wéral baat bi. ba pàpp fu mu yeggoon nga yegg fu gën a euh, fu ko gën a kowee. merci à toutes et à